signé na décret bon moi je pense que la meilleure waaw paradoxe boobu nag la meilleure personne bi ci mën a tontu mais moom la mais en tout cas kii ci li mu laaj ndax décret ñoo dafa am ay nit yu jóg yoo xam ni lu dul wax lu ñaaw wax lu bon wax lu dul dëgg moo leen tax a jóg du loolu rek nga dégg démb am na ñu doon yow problème bu dëkk am na ñu naan arrêté nañ mag yi Mame daw na wuy def na lii waaw donc ñoom ci yooyu lañ nekk mais nag quand même bon man d'accord pour ñuy wax sax wax yooyu parce que jox leen crédibilité la parce que réew mi nag bu ñu demee bay déglu koo xam ni xamul yëgul di wax na ma noo maa fekkee noo maa ki ca buñ demee loolu li fi def ci ay jéeya nañ moytu loolu waxi réew la ñuy wax. mais ñu war waaw mais moo tax man ma ñëw toog di la wax. mais xaw ma nan la nit mën a xalaatee taxaw assemblée nationale. ni wëy man wëy ah décret bi ma am ah, xawma lan diw def ko bañ si signé mais bi décret bi génnee kooku bu fekkee nit ku bëgg a téye nit ñi ci li muy wax la danaan diw si ñëw ko mais defe naa nag nit du dund. dëkk fii njabootam nekk fi mu nekk fi cabinet nekk fi ñu naan non dañu contre am imité signature mais monsieur le ministre pour être honnête et rapide. Hmm. problème entre yow Amadou Ba ou bien Amadou Ba ak le président de la République. <laughs> direct comme question mais ça ça tu vois mën nga am réponse bu direct aussi entre Amadou Ba ak président man xamuma du man maa ciy wax. mais entre man ak Amadou Ba en principe amul benn problème. nekk candidat bi. Hmm. yow génn nga. non non non gis nga loolu nag parce que tamit dégg naa ci lu nekk ku nekk jéem a ut yoon booy wax am na ñu naan da koy chantage ñi naan dafa bëgg lii li ma mën a wax à sa décharge lui ma wax ko moom pour wàcce ko dara bi ñuy ut kandi bi ñeenti nit waxee ni que. dañoo bëgg candidature benn bokk yaakaar man dama wax ni duma ci wax ak kenn ki président tànn lay àndam mais man sama position personnelle yàlla may na ma ma créer condition yu ma ko waxee président man ma gëm te duma ko wax parce que loolu laa gëm lam ma tontu tamit duma ko wax loolu laa gëm bi président tànnee candidat ni ñu ni waa benn bokk yaakaar tànn ni Amadou mooy candidat bi Euh, dama d'accord ni que Amadou mooy candidat bi ma ni kon Amadou mooy candidat gaa yi. Euh, mooy candidat coalition bi. da nga ci génne sa bopp. non xaaral ma expliqué la man bon man je man génnuma peut-être mën nga ci mën nga ci am loo xam ni sax ñeneen ñi amuñu ko. waaw donc bi biñ tànnee bi benn Bokk Yaakaar tànnee Amadou Ba. ma ni Benno Bokk Yaakaar tànn na Amadou Ba ñu defaraat gouvernement bi ma toog ci poste bi ma toog donc Amadou Ba ci bilan bi gouvernement bi di def ak euh, programme bi gouvernement bi am pour perspective yi moom lay def programme bilan bi ci lay appuyé wu bon loolu lépp d'accord nañ. lan ngeen ma ni loolu lépp d'accord nañ. amuñu problème. léegi à sa décharge man approché na ma pour ni dafa bëgg a waxtaan ak man wax dëgg yàlla damay wax rek ca yàlla tax. waa non. déet waaw waxtaan nañ parce que conseil des ministres buñ paree ñooy ànd ñooy génn ñi ñi ñaar ñi waxtaan ñi waxtaan fële wax dëgg yàlla pour ñuy wax ni que non ay daf ko war a seeti ay dafa war a wax ak moom ay affaire yooyu non di xaaral rek waxuma la waxtaan nañ boo boo xaaree rek dinaa la wax génn nañ mu ne ma sama rakk dama laa bëgg a gis ma ne ko kan nga bëgg a gis ministre du tourisme wala Mame ñaa Niang nga bëgg a gis mu ne ma Mame Mbaye laa soxla ma ne ko <laughs> Mame gisu la tooñ ko mu ne ma non il faut ñu waxtaan ma ne ko waaw non amul problème yàlla doxalul ba benn bés mu ne ma dama bëgg ñu waxtaan ci politique ma ne ko bon man bu ma sañoon duñ toog mais loolu lépp li ko waral ay tànneef la yu am et fas yéene ma wax li tax loolu mais jege na ma pour waxtaan ak man yàlla nag def na jóge nañ Kaolack pas Kaolack jóge nañ Kédougou ñëw Tamba di ñëw Kaolack yàlla def na ñu waxtaan nit dangay wax dëgg muy njàtt ma sa mag moo la soxla kaay ma ñëw ñu dugg ci oto ñu waxtaan lii may wax ci wallahi al azim de façon bu gën a soft xëy na sax laay wax mais man wax na ma pour ma jàppale ko wax naa ko sama position du du man du ma nit kuy nëbb nee na ma jàppale ma ma ni ko man mënuma la jàppale ma wax ko li tax mënuma ko jàppale ma ni ko tamit duma la yàqal te yàqaluma ko. que waa APR bëgg nañ ko xam. waaw mais xam nga nee naa la wax ju nekk dafa am. koo ko war am na looy wax nit ñi ak loo dul wax nit ki te comme que damaa joxe sama kàddu man damaa bokk ci ñi ni ba mu ma waxee lu tax dooma jàppale dama ne ko man damaa tànn bàyyi politique j'ai décidé d'arrêter la politique je pense que euh, consacré naa ci beaucoup de temps ki ma àndaloon euh, bàyyi na damay bàyyi te yaa ko wax sànq nga ne ndaw nga donc. waaw mais te nga ne kilifa gi tamit son excellence le président Macky Sall mooy sa mentor mooy sa leader peut-être. waaw euh, moom mu tànn. waaw mais il est a tax yow nga teg say yëf ci git ci côté bi. parce que boo waxee loolu mooy xooloo sama doxalin ak sama ànd ak moom man fii nit ñi defe naa dëgg dafay déranger ñenn ñi. est-ce que joxoon la. waaw ah, bu la neexee yow nga gisee ko noonu. waaw loolu sa sa gis-gis la moo tax ma. waaw man man du ma nit koo xam ni damay joxe bopp man bu ma joxee lépp laay joxe. bu ma joxewul tamit joxe du ma joxe dara bu ma naree toj yëf yi jël ci benn coppati jox la duma ko def parce que dama jàpp ni ko loolu may nguwul ak jub nit da nekk ci dara wala doo ci nekk gis nga bu fojjotee. Mm-hmm. bu fekkee ne que da ngaa décider fo fowal bu fekkee da ngaa nekk ci beneen position ni que da ngaa décider dëggu dëggul man romb naa fa ma daan foowe ci kàttanu yàlla ci li ma yaakaar romb naa foofu dafa am beneen étape bu ma nekk sama àdduna et noonu laa gis ne que noonu laay doxee donc ñëw na ni ma ma jàppale ko ma ne ko man bàyyi naa politique dootuma toppati benn nit parce que ci sama biir xol gëm naa ni que képp ku ñëw ni ma ma jàppale la am yaakaar ci man ci wàllu politique da njortu ni ni ma àndeek Macky Sall noonu nga bëgg àndeek man loolu laa njortu ci li ma xalaat ah si quelqu'un veut qu'on qu'on y aille ensemble il s'attend ce que j'ai le même comportement euh, euh, le même dévouement euh, l'engagement que j'ai eu avec Macky Sall homme loolu lay xaar ci man man loolu mënatuma ko ce n'est plus possible man ci wàllu politique bu Macky Sall rombe lépp bu fekkee dama koy continuer def lépp lu may defati pour sama bopp la walla waxtaan ak nit ba juboo ci position de principe yi ñuy am pour def lañuy ñuy def Macky Sall laa jéggaloon mu doon sama kilifa pour ma xam parce que ba may dem ci moom jàpp naa ni xam na lu ma xamul gëm naa ni mën na lu ma mënul seetlu naa ni egg na fu ma eggul ma bëgg mën li mu mën xam li mu xam def li mu def ma dem toog ni ko grand boo dee def lii man bokku naa def naa sama kémtulaay kàttan ba ànd boobu wanuma ko ci goreeti def naa sama kémtulaay kàttan ba ànd boobu wanuma ko ci jubadi moom tamit damay seede sénégalais ni ko mosuma koo gis ci jubadi damay seede ni que mosuma koo mësta séq ak man goreeti mais loolu c' est entre deux personnes ce même pacte là mënuma ko am ak keneen te comme que moom ba muy ñëw ci man yaakaar ni dafa bëgg ma jàppale ko lu mel noonu la doon xaar ci man mais li gën a rafet mooy du ma ko perdre loo temps duma ko perdre loo xaalisam du ma tas yaakaaram daf ma wax ma ni ko grand man bàyyi naa. mais mais vous reconnaissez comme une bonne des Sénégalais seen àndandoo waa benn bokk yaakaar waa APR. Mhm. d'une manière euh, très simple. Mhm. ne dafa am ay jafe ndax dégg nañ sax rek Yann Thiaf bu génn ne non moom àndul ci mbir mi dénoncé ko vigoureusement. àndul ci lan. li président tànn. li président moom warul wax loolu. ah waaw xëy na dama jàpp ni ko moom warul wax loolu. dama ko jàpp rek xëy na dinaa ma sa expliquer mais dama jàpp ni que moom warul wax loolu. tam du question tort ak vrai ak vérité parce que am na fooy jaar ak nit ki nooy mel ak nit ki du ci mbedd mi ngay waxee sa xalaat. moom bu ci waaw mais loolu loolu sama sama sama doxalin la man mais ci ci indi. du question ni que dama damaa jox président bopp ci làmmiñ du tey gulet président tànn dara man ànduma ci du gulet tey ma am problème ak ku nekk ci mbir yëfi yi Mimi Touré premier ministre du Sénégal Mame Mbaye ñaa président haute autorité dañoo jàppante ci politique ba après moom mu dem man ma dem ma jóge haute autorité dem ay AIBD moom mu jóge primature pourquoi boobu kenn waxul te boobu Mimi Touré président assemblée la président Euh, kii premier ministre la. contexte est-ce bokk mais amul différence boobu ay élection locale lañ doon waaj a dem ay contexte yooyu la woon. sauf que waaw mais en tout cas ci même contexte bi la. après monsieur le ministre. loolu moo tax sa monsieur le ministre. Mhm. ñu bëri na yow coow lu bëri ci biir APR dañ ciy bokk. moo tax finalement dañuy dem ba poser une interrogation mooy lan est-ce que monsieur le ministre Mame Mbaye Niang. Mhm. du intouchable. ci nguuru Macky Sall. ndaxte lu ne dañ ci ay non non non ma de non xam nga du du affaire wu intouchable du affaire u intouchable de. Hmm. léegi léegi wax naa la problème bu ma am ak Mimi beneen problème bi ma amoon kan laa ko amaloon problème bu gën a mag ba indi coow lu bari ba créer ay problème sax suñu biir kër Aliou Sall. dañu ñu xëy campagne opposition bi jël campagne aliou suñu pétrole ma lan décret bi quatre cent mille cinq cent mille kërëb-kërëb ma xëy liir benn déclaration mu ni moom du ci wax ma dem ne ko saa nag da nga ciy wax pétrole boobu noonu oui ah dafa wax ci rajo yi ma dem wax ci rajo yi ak télé bi loolu problème bi loolu la woon ma ni ko saawaay waay munoo wax ni doo ci wax bokk ak Macky Sall ndey ak baay taxul ñun lii ñuy def nii gaañ ñu bëgg ñu taqal lu ñu xamul wala lu ñu deful yow affaire bii ñuy wax biñ koy wax ñu ñu ngi far ci opposition bi créer suñ parti APR di ut nguur di dugg ci koñ yi dem France dem feneen yow boobu yaa ngi nekk chef bureau économique Chine di liggéey pour président Ablaye wàdd ci la affaire yi amee mais il faut nga wax leen ni que ñun affaire u pétrole bi suñ yoon nekku ci te tamit loolu mooy dëgg wala du loolu mooy dëgg mais ba ma ko waxee am ñu daw wéy saaga na kii saaga na kële bon ba bay nitam commencé tontu man tamit samay nit tontu may tontu parce que parce que sama xalaat laa wax ci li ma wax mooy dëgg loolu laa gëm donc du question intouchable ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay président mosumaa wax mosumaa toog mu toog mu ni ma lii wala lii wala la parce que xam na ni sama xalaat sama ngëm-ngëm laay wax boo passé boobu fii la président Idrissa Seck ñëw pourtant dama doon défendre théorie bi nii fii réew mi toll il faut ñu dajaloo na opposition bi ñëw parce que ak jàngoro bi ak li nar a am nii réew mi day metti nañ woo ñëpp Idrissa ñëw ñit ñu naan moom lay jox ndono li ma dem toog ci tele nii xaw ma moom la ñuy jox ndono li xaw ma moom la ñuy bàyyi lii mais man Idrissa Seck du ma jiite donte nangu naa mu ñëw sama xalaat la waa xaaral sama xalaat ak sama ngëm-ngëm ñu jóge ci loolu mais ñu dem ci ay élection locale surtout boobu man boobu rek laay xaar. président benn coalition benn bokk yaakaar tànn candidat nekk ku fi def sax liste parallèle. waaw déedéet waxu ba loolu daf ko wax mais après ñeneen def nañ liste parallèle du man rek quand même. mais sànq waaw waaw mais c'est que dañuy sippe yëpp après man rek la ñuy gis ma dem ni ko ànduma ak kii nga yu may àndal parce que man jox naa sama kàddu ay nit nee naa leen ñooy ànd bu ma dee dee sax joxe naa sama kàddu ak lu ma ci manti dal dama koy def même bu ma dee dem xam ni damay perte dinaa dem parce que joxe naa sama kàddu. sanctionné wala tamit. mais parce que xam nga ni noonu laa mel mais tànn na Amadou man nee naa duma ma ànd ci du ma ànd ak kii duma ma ànd ci lii joxe naa samay raison personnel am naa ay raison personnelle je suis pas tenu de l'exposer mais am naa sañ-sañu ni man ànduma ci lii man yow laa àndal nee nga da ngay bu buñ paree ñu takk suñuy bagage te man takkoon naa samay bagage bëgg réew mi ak bëgg dalu réew mi ak bëgg jàmm ci réew mi ak xëy na ak maandu te ci lii may wax nii am na ay wallahi azim ci bàmmeel lañuy dem dugg ñun ñëpp am na ay responsable ci opposition bi bien avant lii am am na lu xewoon euh, palais cérémonie de ma présentation de vœux ñëppay ñëw institut ma taxaw ak ñeen man leen may yéen dem leen ngeen taxaw ngeen xeex lii di am nii bu leen ko nangu dem leen ngeen wax man maa wax loolu donc man mi wax loolu man ngëm-ngëm laay wax parce que damaa jàpp ni que ki ma àndal sama kilifa la mais sama nawle la am na ngëm-ngëm man maa ko fekk si ci ngëm-ngëmam mais sama biir ngëm-ngëm man am naa ngëm-ngëm moom nangul na mu ko. ba taxaw ci opposant yi dem leen. déedéet mais déedéet mooy bi ñuy wax man leen mais nan leen ñëw leen ñu affaire bi waxtaan moo koy lijjanti taal dëkk bi du solution ñi doon taal gis ngeen fu ñu mujjee ak loolu taal taal taal taal état après ci ci toog waxtaan lay mujjee. mais on a vécu deux événements malheureux ci ay caaxaan ay fo ay tappale di déglu ay nit yoo xam ne xamuñu li ñuy wax di déglu ay nit ñoo xam ni amuñu firnde ci li ñuy wax ay di déglu ay nit ñoo xam ni chaque jour ñu wax la lu tuxu c'est les mêmes gens ñoo naan la wéy décret bi si wuñ ko wéy kii daw na wéy kii feebar na chaque jour ñu wax mais am réew bu demee ba egg foofu ba ñuy xam dëgg sax rus wala ragal a wax mais foog nit ñi toog. contexte boobu noonu bu amee xam nga man ragaluma ragaluma de wala bu foog ni damaa ragal tamit ragaluma mais dootoo xool sa bopp réew mi ngay xool. Ah, loolu lañ doon wax émission bi yëpp lii waaw réew mi ngay xool. donc li gis nga gis gis nga gis nga nit yenn saa yi dina jël décision bu impopulaire ci par rapport à certains. décision bi président jël c'est pas impopulaire c'est très populaire. mais ndax du am ay bu amee dégâts rek mooy dafa am ñu bëgg a profité ci ay situation pour régler seeni problème personnel. parce que saa si tembe. ci bañ jàpp ci yenn ci ay député. no député yu Pastef. waaw non ma bon ñoom. ci xam nga ñoom xam nga ñoom dañoo tànn ni que dañuy affronter mbedd mi pour mu am yenn finalité yi bon ku bëgg affronter mbedd mi nag après normalement loolu mooy am. muy njiitu réew mi mënta toog ni dañuy dàq yëf yi ñëw leen ñu toog waxtaan yow nga am problème yaakaar ni que mën nga koo dem régler ji ci ay xeer te ñu ne la fii mën nañ fi régler kooku moom ku tànn loolu yaa tànn loolu mais ñi nga xam ni dese nañ xel ñi nga xam ni dese nañ xam-xam ñi nga xam ni dese nañ bëgg lu baax ñi nga xam ni bëgg nañ réew mi am ëllëg bu dal ak bu ci jàmm opportunité le président de la république créé pour que loolu ñu waxtaan ci mu am processus bu amul sikk sàkk ñëpp mënu ñoo nekk président. daanuñu ko yàlla mais ay dégâts collatéraux bu amee kan mooy responsable. mais kenn du kan mooy responsable ki ko créé mooy responsable. et yoon daf fi nekk pour wax non non ki reporter élection yi ci yoon lay dox parce que li mu créé li mu li li mu. des spécialistes disent que la décision est illégale. mais attends mais boo nee boo nee boo nee Abdou Khadre laa tudd sax. Mm-hmm. maa ngi juddoo Dakar. ci ñëw ñu noonu di nga ci gis ku ñëw ne la non maye fa boo juddoo dakaar tamit da ñuy wax Dakar ci ban commune boo waxee commune ba ñun la non wax ñu nag ci ban koñ parce que y a des gens qui ont l'esprit conflictuel y des gens qui pensent que ils doivent se prononcer sur tout ci xamuñu y des gens qui pensent que mais yow nan la état yor yow bu fekkee benn constitutionnaliste nga état yor na ñeenti constitutionnaliste wala vingt constitutionnaliste mën a dem consulter cabinet constitutionnaliste bu nekk mën a jël expert en droit bu nekk def yow benn nit nga toog fële mais kon bu fekkee ni que ñun ñooy jàngal xale yi mooy mooy problème am na il faut que ces gens-là pour régler des problèmes individuels problème personnels mettent le pays là en danger d'accord alors Djibi wax na tout à l'heure euh, concernant les dégâts collatéraux peut-être ngeen wax côté opposition beeg coow yi mën a am après cette décision mm-hmm. mais au sein du gouvernement mm-hmm. gannaaw wala boog de l'administration de manière générale mm-hmm. euh, gannaaw décision bi wax naa ko sànq yaay la démission de Abdou Latif Coulibaly secrétaire général du gouvernement oui la démission de Eva Marie Coll Seck ñoom ñaar ñëpp les motifs de démission mooy le report bon déjà madame Eva Marie Coll bokkul ci gouvernement bi ITIE la moo tax ma wax tout à l'heure. bon man ci ci man li ma lire. ci man li ma lire. bon et que elle n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles elle a démissionné man li ma lire. bon ci dernier xaw ma nag après ndax dafa def ay précisions. mon oncle Abdou Latif il a donné ses raisons. il dit qu'il n'est pas d'accord. am na loo wax ni que moom moo ko wax ne naa la loolu amul parce que man fekk naa le contraire donc nit ku nekk am nga sañ-sañu jël position bi nga bëgg nit ku nekk am nga sañ-sañu jël position bi nga bëgg mais li ma jàpp sa njariñu bopp ci de temps en temps ci foog la bari na ñun suñu cas am na ñuy taxaw léegi nii di wax ni que oui ah je suis pas contre je suis contre le report xaw ma la parce que ñooñu dañoo gëm ni que buñ demoon élection ñoom ñooy gagné. ñooñu hmm. xam ngëm-ngëm rek la de ce te pourtant bokkul ak li am am na ci opposition bi fii demal nga xool campagne day am campagne du dangay xëy rek lundi dem campagne ku pare kuy préparer dem campagne la vingt cinq dañuy dem defari ay t-shirt defar ay affiche defar lépp defar lépp yow bi ngay ñëw fii sama kër affiche u kan nga gis seen bos waaw ah, non ma ni affiche kan nga gis. gisuma waaye gisuma kenn waaye gisuma seen bos. dama laaj sa xarit imprimeur yi ñuy def impression yi ñaata t-shirt lañu imprimé.